gannaaw bi ñu leen nuyoo dañ koy doore ak ndaje bi nga xam ne coalition Yewwi Askan bi doon nañ ko amal ci teewaayu Cheikh Tidiane Youm Habib Sy ak Déthié Fall mi nga xam ne mooy mandataire coalition Yewwi Askan Wi moom Déthié Fall di xam la ne Macky Sall day jëfandikoo conseil constitutionnel ak direction général des élections ngir def lu ko neex waaye ñun du ñu dellu ginnaaw mukk du ñu dellu ginnaaw benn yoon te duñu ko bàyyi mukk mu def lu ko neex moom Macky Sall moom Déthié Fall di xamle ne ba tey euh, seen dox ñaxtu bi ñu war a amal le 17 juin ca place de la nation dinañ ko amal moo xam ñu am si ndigal moo xam amuñu si ndigal. Gassane di benn dëkk bu nekk ci diwaanu Linguère ay samba booy ay defkatu ñaawteef yu ngàndaayu woon lool ñoo fa attaqué benn banque. waaye defkatu ñaawteef yooyu ginnaaw bi ñu defee seeni pexe ci lañu song banque boobu nes tuuti la waa dëkk ba dégg ay sox dox ci diggante takk der yi ak way defkatu ñaawteef yi ba tax ñu jëlee ci ay gaañu gaañu ci lañu mujjee daw ci benn 4x4 waaye mujjeewuñ yóbbu dara ca banque boobu atte fa Bayotte ngir dund lañu daan César Atoute Badiate ak ñim àndaloon chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Ziguinchor joxe ne dogalu atte bi ñeent projet Boffa Bayotte boobu César Atoute Badiate René Cappé Bachène ak Omar Ampuy Bodian yoon daan leen seen girub dund ak alamaan bu tollu ci ñaar fukki million ñeel famille yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ci fàttali ñoom nag dañ leen doon tuumaal benn attaque bu amoon ca Boffa Bayotte ci atum 2018. Daba Boy jébbal nañ ko boromam ca Touba seetkat bii di Daba booy ginnaaw bi mu wàccee ab liggéey ci semaine bii. Euh, ginnaaw feebar bu gàtt boo xam ne daaneeloon na ko mbooloo mu takku nag ñoo ko doon gunge biñ koy jéebal boroomam ca armeelu Bàqee ca tuubaa lii nag di ay kàddu yu seede ci benn dëkkandoom nee na nit ku baax la woon nit ku social ak faatoom nag lu ko bett la. nee na ñoo bokkoon benn groupe whatsapp boo xam ne moo ko créé woon le douze bu jot benn membre la ñuy tànn ngir mu teggi ba ci dimanche bi weesu sax moom moo ko waroon fàttali waaye mujjeewu koo def nee na ginnaaw bi mu jullee gee ba pare ci la ñu ko annoncé euh, faatu ki nga xam ne mooy Daba Boye mu nekkoon soog ci moom mu nekkoon loo xam ne si ne sax gëmu ko woon lii di ay kàddu yu seede ci benn dëkkandoom moom Daba Boye ñu ñëw ci xibaar yi ñeel tàggat yaram Golden Boy di ab boo xam ne dañ koy joxe ginnaaw téeméeri ndaw yiñ tànn ne ñoo gën a xarañ ndaw yooyu am na ca benn doomu Sénégal bu nekk fële ca FC Metz di Ismaïla Sarr moom tànn nañ ko wala boog bokk na ci ñi nga xam ne ñooy xëccoo trophée bi di Golden booy dañuy wax ci Christophe Galtier mi nga xam ne ñu bëri xàmmee nañ ko foofu ca Ligue 1 ci ay xibaar Paris Saint-Germain moom la ñu bëgg ngir ginnaaw ba nga xam ne mënuñoo am Zinedine Zidane kon Christophe Galtier ñu ngi koy séentu fële ca Paris Saint-Germain ngir mu tàggat leen. Paul Pogba di doomu France sa doon jongante fële ca Manchester United. coowam bëri lool day demam du dem moom pol Paul ba ci ay xibaar déggoo am na ci digganteem ak club bi di Juventus fële ca Italie nga xam ne sax bàyyi ko woon na fa moom Paul Pogba nee nañu dina fa xaatim ab contrat kon Paul Pogba ñu ngi koy séentu fële ca Juventus. Euh, ca Italie dañ koy jeexale ak doomu Sénégal bii di Sadio maane nga xam ne moom it fan yi yëpp coow topp na ko ci day jóge Liverpool am du fa jóge ci ay xibaar moom Sadio maane déggoo am na ci diggante Bayern Munich ak Sadio maane kon ñi ci des mooy Bayern Munich ak waa Liverpool ngir doomu Sénégal bi mën a bàyyi ko foofu ca euh, Liverpool wutali Allemagne ca Bundesliga ci club bii di Bayern Munich